de la République Macky Sall qui a promis de l'emploi aux jeunes, la direction de l'emploi dans le cadre de la convention État-employeur vient de signer avec l'entreprise Sénégal Environnement pour l'enrôlement de 24 jeunes. Les activités ont été lancées ce mercredi. Aujourd'hui, euh, ici au quartier Métinatoul, de donc pour le lancement des activités d'un de nos partenaires euh, qui s'appelle Sénégal Environnement, qui est une structure qui s'active euh, dans l'assainissement en général, dirigée par notre partenaire euh, avec euh, ses collègues. Donc Sénégal Environnement donc, a signé euh, un partenariat avec la direction de l'emploi. Et dans le cadre de la Convention nationale État employeur privé, hein, en tant que donc, une entreprise privée, euh, la direction donc, a signé dans le but d'insérer de, en tout cas 24 jeunes qui s'activeront dans, ce même secteur, c'est-à-dire dans le ramassage d'ordures dans l'assainissement en général. Le chef de l'entreprise Sénégal Environnement salue l'initiative du gouvernement du Sénégal à travers son ministère de l'Emploi. Depuis la mise en place de ce projet, 27 entreprises ont été déjà enrôlées. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques de l'État du Sénégal. Et ce jour, nous avons a 27 entreprises vraiment qui ont déjà signé et c'est pour un premier lot. Donc il y a un deuxième lot qui est en vue et dans les prochains jours aussi ils vont signer ce partenariat-là et toujours dans le cadre d'insérer les jeunes qui sont au niveau local et dans différents secteurs. Tout ça s'inscrit dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques de l'État et de l'emploi qui nous concerne. Pour rappel, la direction de l'emploi a déjà installé 11 missions locales pour l'emploi et l'entrepreneuriat dans tout le pays. Objectif, lutter contre la pauvreté qui prend de l'ampleur au Sénégal waaw comme ni ngeen ko gisee suñu gaay yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax ci déglu bi ngeen déglu ñoo tàmbalee loolu parce que il faut chaque fois suñuy def benn affaire dañuy teg ay preuve preuve yi nag euh, mooy li ngeen dégg léegi te du ñàkk ne seetaan ngeen euh, vidéo yi ci ci internet bi ci télévision yi di lañuy xamal ne lii nii ngeen dégg ni euh, du lu ñu créé gouvernement Sénégal bokk na ci c'est-à-dire ministère de l'emploi bon lii mi ngi créé eh, Jurbel ba Jurbel eh, la benn ay ay ay ay ay nit créé seen initiative teg seen initiative teg seen projet projet bi aussi bon nekk projet comme projet yëpp parce que sareetu mbaam ramasse ay ordure projet la quoi projet en tout cas projet bi na doon projet bu palpable rek bañ ko tegee def seen initiative médiatiser ko waa ministère de l'emploi appuyé leen ci ñu wane ko partout bañ ko defee aussi am na ñu bëri ñu nekk ci internet bi di koy di koy saboter def ko sabotage parce que lu tax ñu def ko sabotage lenn kese la ñu wax mooy bon ils disent que président Macky Sall ñu ngi ko doon xaar ci leneen lu dul euh, di jël ay sareetu mbaam ramassage ordure di la ñuy wax na doon loo xam ne parce que liggéey moom euh, liggéey mais liggéey moom en tant que ngi génne xaalis rek nit ki war na ci mën a tedd nit ki war na ci mën a euh, war na ko mën a sant yàlla parce que mécanicien soudeur dawalkatu sareet dawalkatu avion dawalkatu bateau je pense que ñëpp benn lañ parce que liggéey moom lu ci am sens mooy fexal ba liggéey bi ngay liggéey rek mu jariñ la jariñ say mbokk

nekk mbaa mi na ma nek auto mais qui peut-être je dirais même qui qui a qui a dit que l'État Sénégal amna amna ben genre ben genre avion wala ben genre auto yo xam ni war na meuna tek je pense que lolu aussi c'est autre chose ben bi aussi moy euh, gis naa ne sénégalais dañoo wara xam benn affaire moy suñu ñu gis benn projet benn projet bu dikkee nañu jéem a encourager projet bi parce que ñi tek projet bi ay sénégalais lañ ñoo xam ni nii peut-être xalat nañ ba seen xalat fu seen xalat yam xam xamuñu lu ñu def ñu teg sa projet saretu mbaam kon comme que peut loolu mooy projet bi aussi waruñu ko ñëw di koy yàq di koy xajamal beneen bi aussi mooy état du Sénégal war nañu war nañu war a mën a gën a gën a gën a xoolaat nu ñuy doxalee war nañ mën gën a xoolaat nu ñuy doxalee parce que genre yi bu amee war nañ mën a xool communication bi war nañ mën a xool stratégie ba su génnee rek bu ñu ko publier rek su journal wala feneen fu mat doon du indi problème du indi polémique mais bu jékki-jékki benn projet ne wala benn genre saret mbaam la jël na quatorze jeunes mais la suite mais la suite la suite lan la kon lii bu amatee war nañ ko mën a jël togg ko xool ko bu baax a baax baax xam naka la war a mën a demee ba la ñuy jékki-jékki rek euh, song ko comme ça mu indi benn polémique parce que léegi ñëpp a ngi estati mbaam ñëpp a ngi dugal ci internet bi mbaam ñëpp a ngi def mbaam partout loolu foo gis ñu la mbaam mbaam mbaam mbaam am na ñu naan sax peut-être voilà le gouvernement sénégalais ñu ngi leen doon xaar ci création d'entreprise seen seen seen création d'emploi yi la ñu ngi doon xaar leen ak leen euh, mais ñu génnee ci mbaam mais bon je dirais même pas xam nga ñëpp ñu xëyandoo ci les ministères ñëpp aussi mënuñu xëyandoo palais ñëpp ñu xëyandoo ci entreprise yu mag yi mais des fois aussi nit ñi dañuy comprendre xam ne peut-être euh, liggéey euh, jàng ba am say doctorat taxul nga ne da war a liggéey force taxul aussi ñu ne da war a liggéey tel endroit force parce que fii Sénégal ñu jàng ñoo fi nekk. te ñi yaa ngi xëy di jàng tout le temps every time every day ñun jeunes yi ñoo war a xool ndekk lañ mën a def bu teg ay projet projet yi ñu war a mën teg nag bëri na du du question projet saret mbaam kese mais am na yu bëri bëri bëri yoo xam ne nit ñi war nañ mën war nañ ko mën a teg togg ko nag parce que projet dañ koy togg projet kenn du ko përëx përëxe mais def sa benn projet kët kët ne voilà da ngay recruter benn vingt quatre jeunes wala quatorze jeunes si benn saret mbaam dugal ko si journal benn pëf après c'est fini bon loolu loolu c'est pas bon loolu il faut il faut que ñu revoir suñuy suñuy communication il faut que aussi ñu revoir waar bu ñuy def li ñuy def li parce que stratégie dafa baax ci projet stratégie dafa baax ci communication surtout nag ku mel ne état état buy communiquer état buy euh, accompagner yenn projet yi nañ ko togg xool ko defaraat ko xool beneen genre façon de communication boo xam ne nii bu ñu ko defee projet bi dana réussir à vie nga xam ne projet bu génnee. day doon projet bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy encouragé day doon projet bu ñuy bu ñuy remercier day doon projet boo xam ne ni si ku gis naan waaw yii lii de moom xewal la vraiment état mi ngi def liggéeyam ainsi de suite ainsi de suite kon tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps war nañ di xool daal war nañ di xool bu baax baax baax suñu def dara ñu xool nu ñu koy defee quoi ñu xool bu baax baax nu ñu koy defee parce que def bi daf ci am solo def bi daf ci am solo bu baax baax baax di la ñuy gërëm aussi di la ñuy sant di wax ne lii ñuy def nii defuñu ko pour yàq parce que defuñu ko pour appuyer état defuñu ko ko aussi pour xeex opposant wala defuñu ko pour aussi pour polémique mais dañ koy def aussi juste pour joxe suñu avis joxe suñu gis-gis comme ñëpp nu ñuy joxe seen gis-gis comme ñëpp nu ñuy joxe seen avis di lañuy wax aussi que projet yi nañ ko di koy toggaat nañ ko di koy xoolaat nañ ko di koy xoolaat bu baax a baax a baax lu mel ni gouvernement sénégalais aussi saa suñuy def benn affaire seen communication nañ ko waaj parce que communication si gouvernement dañ ko war a waaj parce que communication su gouvernement wuñu génn génn subitement def ko lu ñu war a waaj la lu ñu war a préparer la lu ñu war a defarwaat defarwaat defarwaat defarwaat mais nañ continuer comme ça peut être comme que def nañ action projet ne quelque temps dinañ man du ñi bus wala ay projet ay avion wala ay projet entreprise et autres loolu daal ñu ngi leen koy ngi quoi xaar ci loolu di remercier aussi Sénégal 5 vidéo